kontaan rek di nga am yaa ngi dégg parce que boo xoolee suñu papa ay mbër lañu woon suñu nijaay ay mbër lañu woon chaque jour ñoo doon arène nationale arène mais léegi gis bokk ci yaa ngi dégg président Macky Sall doxal yi mënul am jëpp kontaan nañ ci moom ñu koy remercier bu baax parce que na considération bu mu am ci làmb ak téye bu mu téye làmb te loolu nekkul lu ndaw mënul làmb yëpp kontaan nañ ci moom na ñun waa Pikine parce boo xoolee lii lu muy neex neex ñun waxu moom parce suñu gox lañ ko indi loolu aussi ñu koy sant bu baax di ko wax ni léegi la moo des mooy entretien bi

waaye dégg moom xeex na lii bañ teg ko daal ñu koy gërëm di ko remercier bu baax di kontaan ci yëpp ay gradé nañ tàmm léegi stade bi ñu defal ñu fi ay sièges da ngay wax supporter yi. waaw loolu mooy wane loolu mooy ñu correct rek ñu correct. am ne ñun ñëpp ay nit lañu bu ñu toogee normalement ñu bañ ko damm aussi ku sa daan sa mbër bul mer ba damm séeréer yooyu xam nga ñun lañ ko defal ñun làmb ji su fu dem di abay stade léegi loolu jeex na xam dañuy ñëw suñu koñ jàpp suñu stade jàpp suñu ñaam heure bu ñu neex ñu tëgg làmb kon nag nañ ko téye bu baax sàmm ko daal ah.